asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 26 novembre 2020 ñëw ak yi ñu yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey ka mu xëy fësal mooy ki nga xam ne nii nekkoon na fi roi des arènes ca ba muy am ñaar fukki at ba muy am ñaar fukki at ak juróom benn muy Balla Gaye numéro de yëglekaay bi ne daal def na fukki at ak juróom ci làmb ji am na vingt 21 victoire moom Balla Gaye numéro 2 boole boo xoolee ay defetam nag ci ñeenti defet daal lay toll mu nekk mbër moo xam ne daal yëglekaay bi di sunu làmb daal jàpp na ne ka nga xam ne ni moo doon mitu làmb ji di yax yóbbu ni daal ba ko fi ñëpp bàyyee moom Balla Gaye numéro de moo ko jël daan ko ne na tamit ñi nga xam ne amaguñu ay defet ne na Balla Gaye numéro 2 moo ci ñoom maanaam fu leen fekk daal daf leen daan moo tax yëglekaay bi daal ne in les vivante maanaam légende la boo xam ne daal ah dundam daal baax na wala boog mu ngay dund sunu làmb xëy tey wax na lu mel ni ki doon ci Balla Gaye numéro 2 jàpp na ne sax làmb ji ne ne day bu fekkonte ne làmb maanaam daal maanaam mbëri am yàlla moom daa jàpp ne kon est ce que du doon Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy caw ñañ maanaam boog daal ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 mel ni ki daal ay jaar-jaaram ba mu commencé làmb ja ba fii nu koy waxe tey daal sunu làmb bàyyi fu dara maanaam ñi mu jot a bëleer ñamu daan ñëpp ñëpp ak ñi nga xam ne nii daan na leen mu mel ni ki daal tey yëglikaay ba loolu la xëy tey wax nu ko ba wax nu ay atam dana fi mu nekk ni boo xoolee mu ngi am fanweeri at ak ñaar ak ñeent maanaam 34 ans poids mu ngi toll ci 120 kilos ak itam taille boo xam ne am na 1 mètre 90 mel ni ko daal mu mel ni daal suñu làmb tey moom Balla Gaye numéro 2 la xëyee beneen xale ngi nii boo xam ne moom mu ngi ci làmb ji moom tamit daa mel ni làmb simple ji daal la ko ca waroon yëpp da ko caa def muy rëg-rëg nag moom mu xëy di xam ne daal na ne làmb des daal làmb simple moom fi mu nekk nii arrêté na ko maanaam bàyyi na ko daal parce que nag jàpp na ne moom la mu ca def bëri na lool lool loolu nag du sama ay wax yëglikaay bi suñu làmb moo xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni kii noonu wàllum reliquat wala boog wàllum kase sponsor yi ma nga xam ne ñu ko doon wax démb daal naan mbir la moo xam ne léegi dañ koy jël nag di ko indi ca a tegu ci aw yoon que jiite promoteur yi nag Pape Abdou Fall moom xëy na wax ca la mu wax daal ne lépp lu jëm ci wàllum kase sponsor yi moom na ne lees war a xoolaat la teg ko ci aw yoon ba jafe-jafe ya ca daan am di dal diggante mbër ak promoteur ñu man koo régler waaye jàpp na ne loolu nag moom fi mu nekk nii ne na mu ngi xaar ba àjjuma ba ñoom promoteurs yi ñu jàkkaarloog ña nga xam ne ñoom ñoo yor làmb ji ñu waxante ca loo xam ne daal buñ ci jógee dana jàpp ne maanaam mbir ya dana tegu ci aw yoon ba ku ci ne loo ca yor di nga xam na nga koy yore wala boog nuñ koy doxale daal ku ci nekk xam na nga xam ne nii moom naan maanaam daal noonu lañ ko war di doxale mu mel ni kii nag ba tey Maysa Ndiaye ak CRC ba ca Thiès ak ka war a jël place am daal Assane Fall moom la mu xëy di wax daal ne na fi mu nekk la ñuy xaar mooy arrêté wu ministre bi daal la ñuy xaar pour finaliser la nga xam ne nii moom moo di liggéey ba maanaam daal dem ca jeexintal ga yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu ba tey leneen loo xam ne yëglikaay bi wax nañu ko mel ni kon conférence de presse ba muud loolu war a def suba daal li am ba des daal sunu làmb ne na day boo bëggee dégg dëgg moom ko faa digle maanaam daal balaa ngay dugg ca biir moom faw nga sol sa masque door a mën jàll la ko waral nag ku ne xam na ko mel ni ki lenn dong la maanaam moo di coronavirus ba waaye yëglikaay bi yi mu ñëw na ca ka nga xam ne nii nag moom moo di raay ba mu mel ni ki moom daal moom daal mooy mooy homme de confiance su Luc Nicolaï saa su ne mel ni ki yëglikaay bii di sunu làmb ñëw na tey ci tuusi andil ñu ko nga xam ne ni moom moo di raay ba keneen koo xam ne nii ñëw na di promoteur muy idaali ñi mu pikin idaali daal soo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi na taxawale dina beneen combat espoir boo xam ne ni day combat bu nara neex la dox ci diggante Koña 2 ma nga xam ne ni mu ngay kër Ndakaaru ak ka nga xam ne mooy Ronaldinho ki noonu buñ fa jógee dañuy dem daal mooy manga de a ñu dégg nag léegi lambi simple ja maanaam dimanche ji nu jëm daal ña ma fas yéene jàkkaarlu waxtaan ak ñoom ci Adrien mooy ña nga xam ne ñoo yëngatu ca mbirum simple ma foofu lan nu ko xamale fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point keneen koo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne xëy na ñëw ci mel ni mbër moo xam ne nii daal dafa am combat war a bëre muy Bombardier bu Mbuur yëglikaay bi ne na daal li am ba des daal mu nga nga xam ne ni daal mooy ca île di Saloum fa ñu gën a gis nag mu nekk fa di préparer boppam mooy ca Diofior yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wala bokk record a xëy ñëw wax nu ko Bira Sène moom la mu def yëglikaay bi ñëw na ci nee daal lem ba des daal Bira daal fexe na ba dajale ñi nga xam ne ni moom moo di arène nationale ba ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di ay acteur am yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Ibrahima Coy moom la mu xëy di xam ne daal nee li am ba des daal mooy kii di Aline Sarr moom rendre ko hommage moom la xëy di ko def maanaam daal delloo njukkal la koy def waaye am na koo xam ne nii daal nekkoon na fi yàgg maar def fi lu ne def ko ci àddina bi ci wàllum football defe naa tey ñépp xam kan mooy Diego Armando Maradona yàlla borom bi nag moo ñëw ñëw démb dal di koy jël mel ni kon yàlla lan daan wax rek yàgg du dañ kullu nafsin saayiqatin mawtin lo fi waay nekke lu ne lu mu mën a doon jàppal ni bés day ñëw mu fay ka koy fay nag kenn la mooy buur bi subhaanahu wa taala yàlla nay ànd ak yërmandeem waaye jeego daal loo ci mën a dégg moom wuyu ji na boroonam yàgg maar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyooti di leen ziarati ah tey nag ni ngeen ko xamee tey ñu ngi ci sedi ah 26 novembre 2020 noonu la demee ah maanaam ñaar fan ak juróom benn ci weeru novembre ci atum 2020 yëglikaay sunu lamb record leewtoo point net fu ci nekk xibaaru lamb xëy na fa tey bu dee sunu lamb la nag moom xëtamu njëkk tey kam fa xëy fësal mooy la lion de Guédiawaye ancien roi des arènes bi di Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi dafa ñëw toppaat ko ba mu duggee ci lamb ba fii ñu koy waxee tey mel ni ki li mu fi jot a def moo tax yëglikaay bi jàpp ne day ah bu doon lamb da maanaam mbër day am wàllum yàlla nu mel ni ki ci 21 victoire muy mbër moo xam ne bi muy am 26 ans ñaar fukki at ak juróom-benn ci la nekk roi des arènes yëglikaay bi tamit yemu ci jàpp na ne mbër yi nga xam ne maanaam seenu daanu yu njëkk defet yu njëkk ñu am ko nee na moom tàmm na di daan ñoom mbër moo xam ne la Yékini ku ne gis na nag xëy na ñun du ma baatu bi yàlla ndax loolu day xaw a diis waaye xam naa ne daal li am solo parce yàlla moom kenn la loolu moom mooy li am azza amul morom allahu waaw moom moom daal mu ngi noonu moom mooy càppaacoli bu ñuy wax càppaacoli xarañ du kenn ku dul sunu borom waaye nag bu fekkente dañu ñëw ci mbiru doomu aadama ak nit ak la muy liggéey moom daa mel ni liggéey bi muy def muy mbirum bëre wax dëgg yàlla loo waxati waxati waxat da nga xam ne Balla Gaye 2 mën na ko lool lool lool macha allah pom yi ñuy wax bëre moom lu mu mokkal a mokkal la parce que nag boo xoolee bi mu débuté carrière am yàgg maar di daan dem ci mbapat yi ndeysaan Père Balla Gaye Ndour turandoo na ko yàlla xare aljana daan ko yóbbu ci mbapat yi li may wax ni ñoom père Max Mbargane ak ñeneen ñoo xam ne daan nañ daan nañ ñëw seen ay mbapat ñoom père Birahim Ndiaye ñoom nga xam ne ay giskat lañu bañ ko gisee lañ xam ne kii ëllëg war na nekk dara ci làmb bu fekkee foog na bokk ba mu am encadrement te loolu ñu ko waxee woon ba yàlla defee ñoom Balla Gaye Ndour ak ña nga xam ne ñoom ñoo yoroon école Balla gay formé ko encadré ko moo koy moromam defe naa tey ah mënu tudd làmb te tuddoo Balla Gaye xale boo xam ne wax dëgg yàlla ci prouesse technique yi muy def ci wàllum bëre di ko wane moo lay wan ne kii ku mën a bëre la macha allah itam wax dëgg yàlla bi muy jël na ay combat yoo xam ne bu mu koy jël ñëpp dañu doon ay risque la mais mu boo xoolee ba muy boo fàttali ko ba muy daan maam Góor ah ke bu jamono yooyu maam Góor Diouf téye ko yombul mu am ko defee naa ne premier grand combat am ñu bëri Iba Mar Diop mu daan ko saalum saalum Saloum Saloum Saloum Saloum bërki dem seetaan naa ko ITV mu wax ko Ngañ Jaañ ak Malick Thiandoum ma leen di nuyu di leen ziar Saloum ne na keroog dóor ya ma ko dóor bu nekkul woon ko ñeme day jaayu te bu jaayoon ma daan ko waaye nee na daf ma xaar ba ma ñëw mu bëreek man kere maa nga fa toog yàgg maar mook saalum saalum bëre bu méttee métti premier combat ak isaapu iba maar Diop dañoo bëre bay bësante kere dafa ñàkk combat boobu waaye boo xoolee yeneen combat yi mu wane boppam di wane bopp ne xale boo xam ne daal wax dëgg yàlla moom Balla Gaye 2 ah wax dëgg yàlla xam naa ne daal mbër la moo xam ne Euh, du ma ne def na li ko war lépp ci làmb ndax carrière am jeexagul waaye xam naa daal fi jot a jaar moom ah leeral na ko ba mu leer loolu nag mooy sport donte nag am na ci ay défaite parce que sport day ànd ak ay défaite des fois loolu mooy sport loolu mooy loi bi des moom match des fois moom défaite mu nag yàlla dimbali na ko ba match ni lagul waaye ay combat yëpp boo xoolee ay victoire la ci jëlee wala yëm ca amul défaite luy toll si ñeenti ko yëm ca amul victoire 4 combat la boo xoolee Eumeu Sène ko daan ñaari yoon Bombardier daan ko ak waaw ak Issa Pouye voilà loolu moo di ay defetam mel ni kon daal mbër la moo xam ne bu ñu naan mbër waada moom wax dëgg yàlla mbër waada la moom Balla Gaye numéro 2 waaw di wax ne ba tey bu nu continuer ak sunu làmb geneen koo xam ne ni itam mu nga ca yoon woowa Balla Gaye 2 ne muy rëg-rëg waaw parce que itam ba mu duggee ba tey macha allah mu ngi def ay jaloore rawatina lutte simple boobu nag ci la xëy di wax jàpp na ne daal moom ah fi nekk nii da koy arrêté parce nag lam ca am bëri na lool ci ay victoire mel ni ko sunu làmb xëy xamal ñu lool muy xale boo xam ne itam xam bàyyi lutte dana wéetal waa lutte ndax la tax mooy rëg-rëg mu dugg si ci lutte yàgg maar animation ba ak yëngu-yëngu ya loolu amateur lutte yi duñ ci mës a doyal waaye nag ah bu fekkee dafa jël décision yi nit ku ne nag yaa am na foo xam ne boo fa toll yaay jël say décision ci sa bopp parce que nit ku ne dafa am boo ko amee euh, foo xam ne boo fa toll ci wàllu maturité da ngay nekk kilifa am na yoo xam ne nii di nga ko jël ay décision yoo xam ne daf lay concerné te defe naa loolu bu keroog dañ la koy nangul waaye xam naa daal ku saf xorom la ci wàllum lit simple moom rëg-rëg Pape Abdou Fall ak wàllum reliquat sponsor bi nga xam ne fan yi génne nañ ko mardi wax ci kani léegi nag désormais dañ koy xel di jaarale ca CNG bu maanaam di ko teg ci yoon moom daa mel ni daal jàpp na ne mbir yooyu lees war a gën a mën a teg ko ci yoon Pape Abdou Fall mi jiite promoteur yi parce que jàpp ñëw na sax ci combat ba tëggoon na ko mu amoon ca jafe mu amoon ci lu balaa bëri dina jot avance su bëree ba pare mardi ba cay topp dinañ ko jox xaalisam toppante du fa am kon defe naa wàllum kase sponsoring bi tamit war nañ ko mën a indi foofu waxtaan ci ña yore làmb ji muy CNG bi waxtaan ci ak promoteur yooyu tëgg waxtaan ci ak ne su amee buñ ci jógee yaakaar loo xam ne nii leçon yoo xam ne war nañ ko cadre teg ko ci yoon ba xam ne coow dootul am ñëw na di promoteur Idaly Gningue di tëgg ay combat ku ne gis na kera tournoi bi mu taxawal ñu ne déet ne waaye ku ne xam ne ne mbaytin numéro 2 bu waalo ak dab moo ko tëgg waaye dafa tëggaat beneen combat boo xam ne wax dëgg amateur bi rafetlu nañ ko muy koñaa numéro numéro 2 ak nga xam ne ni mooy Ronaldinho bu Guy Mouride Koña nag ci defet la mujj a jóge digganteem ak Wës Jàmbaar Ronaldinho jóge ci ndam lu rëy rëy rëy euh, bu yàggul daaw mu mel ni kon ñaari xale yu mën a bëre la boole moom idaal yi ñu ngi tey nag la leen di présenté fa nga xam ne mooy ci buntu arène nationale loolu ba tey ñu ñu koy wax ci fa nga xam ne moom moo di ca sunu làmb ak Leewtoo point net ba tey Leewtoo point net boobu bu ñu fa continuer Manga 2 bi ñu dénk lit simple bi léegi nag danañ dimanche incha allah rabi dana jàkkaarloog waa lit simple bi loolu defe naa lu war a am la wax dafay yoon bu ñu la dénkee mbir acteurs ya koy pratiquer nga nekk seen njiit muy mbër yaag amateur yaag promoteur yi koy def ak ñëpp war nga jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen nag ban destination nga jëm ak loo bëgg a def waaw conférence de presse su Modou Lo suba ah, kuy ñëw na nga yor masque de kuy rul masque yàgg maar boo doo dugg waaw loolu mooy li am raay bokk ca Luc Nicolaï en ko ne nan daal ba tey mu ngi continuer di nekk homme de confiance Luc Nicolaï ma ne ànd bu yàggee rek day doon dëgg parce que raay moom wax dëgg yàlla ku ko xam-xam ne wàllum lamb gën ku koo xam ci réew mii jafe na te itam ba ñu xamee lig ba tey raay lañ ko xamel ci wàllum organisation ak lépp kon defe naa seen ànd boobu daal yàlla na leen yàlla musal ci saytaane bàyyi leen ñu ànd continuer parce que ànd boo gis rek maar bu yàggee rek jàppal ne ku ne am nga loo muñal sa morom mais su muñalante amul rek ànd du yàgg kon yàlla na ànd yëpp yàlla sàmb ko yàggal ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey bu nu continuer dem ci record Bombardier nag li ñu xëy di xam ne daal daa mel ni ca Ilie daal ay joof yoo rek zone yooyu daal fa leen di préparé digganteem ak Balla Gaye waaw mu mel ni kon moom dafa am bés te bés bu rëy nag boo ko amee faw nga préparé ji ndax Bombardier ku ne xam ne la ma doon wax rek du ñëw ci làmb nga ne entraîné wul loolu moom du ko def ñàkkul fu la am di bëree ba tey ni yoo xam ne lam leen magee ci làmb bëri ak lam leen magee ci at dafa naa loolu mérite la ak tamit am hygiène de ci sportif digganteem ak Balla Gaye ku ne xam ne ne taxawaat na Père Gaston Mbengue moo ko tëgg muy combat boo xam ne parce que buñ demee ba ci kanam ngeen di xam sax ne lu am enjeu ndax bambara Bombardier dafa daanoon Balla Gaye te booba waa kër Balla Gaye wala ña ko jege jàppoon nañ na xëy na du Balla Gaye 100 pour cent moo ñëw te Bombardier ne ko kon bi yoon kii wér laa bëgg mu ñëw ngir ñu mën a jàmmaarloo kon yàlla nañ fekkee bis boobu te tal ko ba tey bu ñu continuer ci journal bi nga xam ne moo di record ka nga xam ne moo di Bira Sène ne nañu ah fi mu na ba lëkkale arène nationale ak ah a a waroon na a am li ci des mooy xëy na ku koy saytu di ko toppatoo ngir que arène bi gën a mucc ayib ndax sunu yëf la te ñoo ko moom ñun waa Sénégal ba tey ka nga xam ne ni benn kilifa la ci sport réew moom tamit daal la xëy xam di wala moom koy rendre hommage moom mooy Ibrahima Thioy waaw moom daal docteur Alioune lay rendre hommage waaw defe naa loolu méritam la parce que nag lu la waaye waxati waxati mooy liggéey na ci làmb lu yaatoo yaatu daanu moo dajul suuf comme ma koy waxe waaye ñu rendre ko hommage ne ko jërëjëf jaaraama parce que nag lu mu fi def la moom docteur Alioune Sarr donte mbir yëpp nag du moo matale waa tey daal loolu moo fi ñëwoon di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal dina fi yàlla def jàmm xam nga nuyu suñ soppe fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm waa di nuyu nag suma xarit a l'international Youssou Ndoye waa démb macha allah basket ba gis naa la ngeen def waaw ak Kenya waa na sax rek. ba ngeen dem ca Coupe d'Afrique ba indil ñu kaan coupe bi parce que gëj nañ ko am depuis 97 kon maa ngi la koy ñaanal yow Youssou Ndoye di ko ñaanal ñoon nga nekkanul ci équipe bi yëpp waaw sa coéquipe yi nga nekkanul équipe nationale di wax ne tamit ki nga xam ne mooy Boniface Ndong ñu jox ko muy lu bees équipe bi yàlla na indi Coupe d'Afrique bi nga xam ne gëjoon na fi parce que tamit doomu réew mi la bu ñu ko dénkee defe naa ne ñun ñëpp nañ ko jàppale rek pour mu réussir ko waaw di nuyu di tamit ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre yàgg maar di la nuyu di nuyu waa Liberté 4 sa gox ba di nuyu waa Bawol sama dëkk ba nuyu waa Euh, asan sa dëkk bu nu mu tuddati waay ah, waa Linguère waaw Linguère <laughs> dëkku Aly Ngouille Ndiaye ancien ministre de l'intérieur waaw foofu la Assane Waalo Gaye dëkk muy nuyu waa Linguère yëpp Daara jolo ak dëkk yu ko wër waaw jolof yëpp daal waaye nag di nuyu ki nga xam ne tamit moom moo ko remplacé di de ministre de l' intérieur sama doom bàyyi Antoine Félix Diome di doomu xombal xam nga maa ngi sore wu ñu ay dëkk mu koy nuyu di nuyu waa na nga fi def lu gën li fi Aly Ngouille Ndiaye defoon parce que itam na fi yàlla def jàmm di nuyu sama maire commune ah a ñàkk moom ah ndox ak suukar la rek boo leen xasee jaxase boo leen naan la wala boo leen tuur te looloo am sama digganteeg moom yàlla na jàmmam yàgg di ko ñaan moom tamit mission bi mu am ci commune Ndondol yàlla na ko réussir ba ayam jeex